seer na mun benn bur bu nu war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baal àq tey ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu bokku ñuy jéggal ñun ñépp bokk yi sunu xutba mu ngi jëm ci xadis bi yonante bi wax ne na nga jëm ci lu jariñ te nga jël sa boroom muy sa ndimbal ca bul wéeru fenn fu dul yàlla jaam bi bu nekkee ci kaw suuf saa su ne su xëyee war naa dox jëm ci lu ko amal njariñal adduna ak alaaxira waaye li ëpp ci jaam yi saa suñ xëyee mën nañoo sonn ci mbir lool mbir moomee ñuy sonn boo ko dee xool njariñal àdduna nekku ci njariñal alaaxira nekku ci moo waral nit saa suy dund ci kaw suuf xel mi ko yàlla jox su dafa sàkku ci moom muy xalam maanaam muy xalaat xalaat googu mu muy xalaat nag ci la mën a xër jëm ci lu koy jariñ ci mbiri àddinaam ak àllaaxira bokk yi xam ngeen ne bénéfice wala mucc ci dundu doomu aadama bi mooy sàkku téef bi nit ki di sàkku ci kaw suuf kenn ku ci nekk dund gi ngay dung ci kaw suuf li nga ciy sàkku mooy an najaax wa saada mooy ak texe aku mucc wala ak sàmm gu sëkk moo tax yonent bi saasam wax ne yow jullit bi maa ngi lay dénk nanga nga xër ci lu lay jariñ ca nga jël sa boroom def ko muy sa ndimbal ca bul wéer dara walla lu mën a am ci kaw suuf nga ko di ko jiiñ keneen ku dul yàlla loolu tawxiid mënu koo wees loolu nag lim ci namm mooy jaam bi ci boppam saa su xëyee war naa xër jëm ci ay mébétam ya gën a kawe ci àddunaam ak alaaxiram ak jukka ya gën a sax yoo xam ne saa suñ ko xoolee xam ne kii jukkoy julli dëgg moo ne ci moom ak jaamu yàlla ga gën ci jaamu yàlla ya ci ak topp mu di ca góor góorgóorlu di ko def def sa dund muy am hadaf nit ki buy dund day am bëgg-bëgg am jubluwaay waaye dund goo xam ne yow amoo bëgg-bëgg amoo jubluwaay googu dund baaxul képp kuy dund ci kaw suuf sa dund war naa am hëdëf mooy lan jubluwaay ci lu ci lépp loo man di nekk moo xam jubluwaay bu baax la wala safaanub lu baax ca la gën ci nit ki nag mooy ak dundam ci boppam mu jublu ko jubluwaay bu baax ca xam ne jubluwaay boobu nga xam ne moom la nit ki di jublu su dee lu baax da koy jariñ ci àdduna jariñ ko ëllëg alaxira dox bi muy doxee di di dem ak fu mu mën a doon mooy li muy sàkk na xam ne am na raaya am na dayuwaay am na bidaaya am na nihaaya am na fu muy tàmbalee am na fu muy yem ndax yàlla lépp lum sàkk mu am tàmbali rek am na bi yem kullu bat in lahu nihaaya lépp loo gis mu am ak tàmbali am na fu muy yem loole nag bu ko bu ko jullit bi xamee dana mën a góorgóorlu ci ak dundam bu baax a baax ndax boo xoolee nit ki bokk yi doomu aadama ci ñeenti kër la la dëkk kër gu njëkk gi mooy daarul batni bi nga nekkee nutfa nekk alaqa nekk mudduqa nekk idam gën a jamono kon yaa ngi jóge ci biiru waajur wu jigéen génn nga ci kër loolu kër la boo jugee ci kër googu yaa ngi ci daaru dunya ñu ne diw ganee na jamono kon yaa ngi ci àdduna àdduna bii nga nekk nag ci ngay fàggu ëllëg muy alaaxira boo faatoo ban suul la yaa ngi ci gën geneen kër gu tudd daarul barzaqi daarul barzaqi googu foofee na yaa nga fay toog di xaar kër gi gën a mag ci kër gi ci kër yi muy daarul qiyaama ñeenti kër yooyu muy étape doomu aadama kon moo war a nit ki su su ganee jamono rek war naa mën a góorgóorlu ci loo xam ne soo liggéey dana ko amal njariñ moo tax suñu borom wax ne afa man yamsi mukibban ala wajhi ahda mu yéefar yi nga xam ne bu ëllëgee ñàkk gëm gin gëm yàlla su leen yàlla dekkalee seen xar kanam yii la ñuy doxee fa man yamsi mukibban ala wajhi ahda wa man yamsi sawiyan ala siraatil mustaqim kooku mooy jullit bi nga xam ne saa su ne rek ay mbiram war na koo mën a jaar ci lu koy amal njariñ maa ngi dénk saa bopp di leen dénk na ni xéer ci lu ñu amal njariñ bokk yi dundu dundu doomu aadama lu gàtt la fii la juddoo fii la màgge fii la yaroo fii la faatu fii la ko suul kon dund gi lu gàtt la lenn lu fi jar ci dundu doomu aadama jàmm bi fàtta fi boromam amut jàmm bi bañ fee jàmm yàlla amut jàmm tapp ci bakkanam def lu ko neex amut ndaxte kat yàlla moom du tàggoo ca ku bari doole la kon saa soo xëyee rek war ngaa nekk ci lu lay amal njariñ waaye topp garan place yi garan bu jeex nga dem ba ca des mën ngaa xëy ba ngoon ayat alquran doo ko jàng a laa doo ko wax doo jàng xasiida doo tudd yàlla doo sarxe doo def lu baax ba jant bi so ba cëg boobu da ko perte ca li xew ci jamono moom ku koy topp ku koy topp ku ne jant bi mën naa fenk ba soo doo defal yàlla dara muy leen politique bi politique bu bon bi ne ci àdduna bi mu ku ko topp moom doo doo fa da ndax garan place boo dem ci jamono ji ñu toll journal booy liir internet beeg foo mën a dem politique bi rek la ñuy waxtaane politique bi képp la ñuy waxtaane loolu nag day wàññi du lu am njariñ ci dundu doomu aadama bi fexeel kon yow nga gën a nga góorgóorlu ci bëccëg bi nga am loo def ca li ëpp ci ndaw ñi ñun ndaw ñi li ëpp ci ñun mooy garan place bu ñu toog werante football bi kee moo dàq football nam dóore bal ba kee mooy kee politicien bi la ànda moom day joxe alal je kee dañ koo tooñ dañ koo def nangam ak nangam mbër mbër mbër sàngam moo dàq bëri mbër sàngam yooyu rek la ñuy waxtaane ci garam place yi mën nañ cee nekk di ca wax ay ba ay waxtu waxtu waxtu yooyu yëpp muy pertaanga ci ñun kon jullit bi bokk yi nay xër ci lu koy amal njariñ rawatina jamono ji ñu toll nga xam ne dee daa gaaw da ngay xëy suba dañoo ah diw faatu na nga naa ah, fii la romboon démb di bu nekk woon ci ko lu am njariñ ëllëg pertaanga lay doon moo waral wér goo gis wéradee ngi ci kanamam wér goo gis wéradee ngi ci kanamam kattan goo gis lompa nga ci lompa nga ci kanamam am am goo gis ñàkka nga ci kanamam yii yépp nag mi ngi suñ kanam ku yàlla jox wér ngay bajj bajjee ka rëkk-rëkki koo dóor mu daanu dégg nga ku la romb nga fel ko mu muñal ko tuuti bisa ngi ñëw dañ koy yëkkati dootu mënal boppam dara kon wér goo gis ak wér dee ngi ci wér dee ngi ci kanam doole jooji sax it ñàkk doole nga ci kanam am am joo gis ama ñàkk nga ci kanam benn yàlla nangu li nga amoon lépp bala ngaa faat wala nga faatu ñu ngi fa bàyyi di ko xëccoo kon kuy kuy xalaat loolu mbokk yi da am foo jëmale sam xel da nga am foo jëmale seen xel nan xir ci lu baax nan jublu ci lu baax nan jublu ci lu ñu amal njariñ ca bañ a nekk ci loo xam ne amañu amaluñu njariñ la Ibn Mas'ud waxoon ne moom de saa su xëyee xam na ne diggi faatoom mi ngi gën a jege jant bi bu fenkee ba so lépp loo xam ne def defu ko ci lu baax nee na bëccëg boobu da koy réccu ndax ku xëy rek sax day jege si na képp ku xëy rek saw fan a ngi wàññiku sa rafetaay a ngi wàññiku sa kattan a ngi wàññiku sa am am a ngi wàññiku sa lépp a ngi wàññiku te yaa ngi gën a jege dee loolu nag su ko nit ki xamee saa su du du ñàkk waxtoom ci lu amul njariñ bokk yi suñ borom nee na yawma idin yatazakkaru l-insaanu wa anaa lahu dikra yaquulu yaa laytanii xadamtu li xayaati ne da nga gis ëllëg nit ki fàttaliku lam nekk woon ci àdduna muy ab safaanuk lu baax mu ne yaa laytanii xadamtu li xayaati aka neexoon sama dund gépp ma jël ko def ko ci lu baax bis booba nag bisub réccu la kon bala ngaa réccu na nga góorgóorlu fii képp koo xam ne danga ngaa xër ci loo xam ne dana ko amal njariñ dana ko jural ay bénéfice valeur am koom yu sell ca la ca ëpp nag bu àllëgee ga ëpp ci payub xër ci lu baax mooy bëgg borom bi subhanahu wa taala ma waral sahaaba yi ci boppam mas nañoo laaj bi sallallahu alayhi ne ko yéen jëf moo gën ci jëfi benn waaye dikk yonent bi sànq ne ko ban islam moo gën ci islam yi mu ne ko nga fexe ba sa xol bii mucc sell kenn bañ cee nekk ku du borom bi subhanahu wa taala waaye nga fexe ba nit ñi mucc ci saw làmmiñ ak ci say loxo lu jafe bokk yi ci jamono ji ñu bari buñ xëyee ña nga ca roq di jëw doomu aadama diw nangam diw nangam diw nangam wala ñu tudd sikkam léeg-léeg nga yorub lii nga yorub culo di tuddi liibarub jàmbur moo am ci moo am fi ñu tollu nag léeg-léeg nga seede ci nit loo xam ne dara xamoo ko ci da ngay dégg rek moo war a réseaux sociaux yi nañ ci def attention rawatina politique saa yi nga xam ne dañuy yàqante dara di jëmali sa loo xam ne dara dara du ci dëgg dégg kenn ko xam ne diw la àndal génn wax ci nit lu bon yooyu dafa toog ci plateau boo toog wax na diw noonu la mel diw noonu la mel diw noonu la mel in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu nit day day day leerul xibaar ba mu wër ñii nga gis lépp ñu jëbali say politique say ak nangam naam kenn ku nekk fa nga far ngay duufal rek waaye am na ci ñoo xam ne lan koy waxee sax dara du ci dëgg xam li ñuy génn ci suñu làmmiñ julli dëgg day fexe ba moroomam jullitam mo mucc ci làmmiñam ak ay loxoom mais julliti léegi si boo dee boo dee xool ay jullikat ñoo am mais ay julli di wér kenn bëreetul ci kaw suuf waxante lu ñaaw tuumalante waxante lu bon kenn ku ci nekk di xas sa moroom nangam ak nangam sëñ bi yooyu doy waar la fan yii maa ngi gis am na ci kuréel yoo xam ne naan ay sën maarab bu leen xaw ma nangam nangam boo boo naan dañ def ay kuréel nangam nangam nan dallu ca la seen maam nekkoon lan leen seen maam bàyyeeloon ñu ne ca nañ ca góorgóorlu ji ca bañ a dugg ci politique bu salte bee bu ban bii ca jaamu ji yàlla loolu rek moo am solo loolu rek moo am solo ndax jamono ji ñu tollu fii ñu toll tontu nit dafa yomb sa kër ngay toog tontu ko sànni ko ko ñëpp di ko gis nga wax ko la neex kon nan góor góorgóorlu ci lu baax bokk yi mu ne ko bi gën mooy bi ci topp mu ne ko ayul islam afdal ban islam moo gën mun ne ko al iman mu ne ko waaw wamal iman lan mooy gëm yàlla mun ne ko da ngay gëm yàlla gëm malaayka yi gëm téere yi dégg nga gëm yonanti bi gëm na dekk am na ëllëg yowmal qiyaam gaa yi nag nee nañ àdduna moom ko dee dee na déedéet yàlla lu mu wax ci alxuraan dana ñëw yàlla lu mu wax ci alxuraan dana ñëw dekki am na de ku bàyyiwu dekk nag loolu neex daxal am na ñoo xam ne jàpp na buñ faatoo faatu jeex na jeex na déedéet lu àdduna yàgg-yàgg dekkee ngi ñëw lu àdduna yàgg-yàgg dekke ngi ñëw an nafqatul ula wa nafqatu saniya yawma yanfaqu fi suuri fa sa'iqa man fi samawati wal ardi fa ida hum qiyaamun yansuruna kon dekke am na mu ne ko loolu jullit bi daf ko war a gëm mu ne ko waa ji laaj ko ne ko waaw jël liimaan nag moo gën ci liimaan yi qaala al hijratu mooy gàddaay mu ne ko lan mooy hijra mooy fexe ba gàddaay lu bon nanga fexe ba gàddaay lu bon kon ndaka jullit bi daa war a xiir ci lu baax ba noppi fexe ba gàddaay lu bon bu xastaate bu mu xeebaate bu mu jëw bu mu rambaaj bu mu wax lu du dëgg bum tumaal doomu aadama bu mu nangam bu mu nangam bu mu nangam ab jullit kon noonu lay mel bokk yi yonent bi sallallahu nee na bokk na ci mandargam xër lu baax mooy di julli julli mbooloo bu noddee nga dem ci jàkka ji julli ji wala foo fekk mbooloo di julli nga dem julli fa ndax kat sallallahu alayhi wasallam nee na jullik mbooloo ëppee na daraja jullik kenn bi sàppin wa isrina daraja ci ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar jullik ëpp na ko daraja jullik kenn ma waral du dañ mukk di ko wax na ni génn kër yi ci julli ci jàkka ji jàkk fu waay nekk jumaa ne fa wala jàkk ne fa bu nodde demal nga julli ji julli du ajjuma rek gaa yi bari ajjuma ba ajjuma lay dem ci jumaa yeeg jàkka ji jumaa ji buñ ko fi doon tëj ajjuma ba ajjuma daanaka kon jëruwul kon nañuy dem ci jàkka yi julli farata yi waxtu juróom yi di ko fa julli ji am na ci ñoo xam ne ñu ngi tëdd seen kër yi toog woppuñu pattuñu amuñu ngàntay bañ a dem jàkka ji dem julli ji ndax kun ci kun ci yëgal loo war a dem da nga dem da nga da nga dem kun ci jox dig dara waxtu wa jot waxtu julli jot da nga fa bàyyi julli ji sax dem di wudi ko kon nani fonk julli ji ca mbooloo mi na dem ci jàkka yi di julli ji yi jullit bi nag dafa war a sàmm ci lépp loo xam ne dana ko amal njariñ tàmbalee ko ci boppam tàmbalee ko ci boppam yonent bi sansam nee na lépp lu la amalul njariñ na ko bàyyi bokk na ci rafetalu lislaam ci jëmm ji mooy mooy lu amul lu ko amalul njariñ mu bàyyi ko képp koo xam ne lu la amalul njariñ nag bàyyi nga ko soxlaa lu la amal njariñ sa lislaam day daal rafet waaye képp ko xam ne la nga nekk amul njariñ yaa ngi ci sonn guddi ak bëccëg sa lislaam moom day ñaaw kon na ni fexe ne ci lu am njariñ ca bàyyi lu amul njariñ fii jamono toll nag loolu rek moo fi des la yonent yàlla Shuayb bu waxoon na wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anu li leen digal tere leen ko ne bu leen ko def man mii leen ko man mii leen ko tere man li ma leen tere man mii leen ko tere duma ko def mukk li ma leen digal te bu ngeen dikkee mën nga ci mën ngeen ci jiitu maa leen ci jiitu loolu moo lool lool loolu mooy li am solo mais di digle ca la ngay digle nekk ci di tere ca la ngay tere bawoo lool loolu loolu taxul ñu wax loolu lool loolu leen waxoon na leen nag euh, in uridu il islah ma sataab wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib jubluwuma ci li ma leen ñi digal lu dul luy defar seen mbir ëllëg muy adduna ak àllaaxira waaye jublu ci tamit loo xam ne bu àllëgee dana leen gàccal te ñun ñëpp bu àllëgee dana wujji borom bi subhaanahu wa taala te lépp lu ma leen digal maa leen ci jiitu lépp lu ma leen taret maa leen koy njëkk a moytandiku kooku mat na kilifa loolu mooy jukkay kilifa bokk yi fi ni mujjantele mooy xër ci li nga xam ne dafa am njariñ dana dëgëral ab jëflante dana taxit lépp loo bëgg muy lu baax suñu borom jàppal la ci waaye danga bëgg loo xam ne baaxul ci yow nga bañ loo xam ne moo gën ci yow ca nit ki suy bëgg li teew ca njariñ la néew li am dig ca njariñ la bari da ko ëpp doole ab jullit nag toujours nag li teew ca njariñ la néew rek lay jëkkante woo waaye li li nga xam ne dafa dafa amub dig ca njariñ la bari moo ëpp doole li teew ca rek njariñ ñi néew ca ku ne xam ne ne ëllëg yawmal xiyaam ab digle waaye njariñ la ëpp doole fuuf lii teew tey muy àdduna njariñ njariñ li ci nekk ñu xëccoo looleen ñu bàyyi ci xel suñ borom nee ne kalla bal tuhibbuuna al aajila wa tadaruuna al axira al aajilatu huwa addunia wa tadaruuna al axira huwa al qiyaama kon nan bàyyi xel loolu mu dale waxaan ne yàlla nee na da ngeen bëgg loo xam ne da ngeen bañ loo xam ne moo gën ci yéen ngeen bëgg loo xam ne baaxul ci yéen léegi-léegi nit na ci mbir di kër kër yi di kër kër yi di kër kër yi ba yàlla dogal mu am ko mu faatu bàyyi ko fa nga bañ dara nag loola fekk moo gën ci yow kon nag julli li maa ngi dénk saa bopp di leen dénk na leen xir ci lu baax dox jëm ci lu baax di wax lu baax fu nu fekk loo xam ne ab safaanum lu baax la ñu jéem koo baaxal ca bañ koo ñaawal ca bàyyi yi di wax lu ñu leerut ak loo xam ne amuñu ci xam ca li xew ci jamono ñu baree baree bari tëj nañ leen ci kosa yi ñii mënatuñoo dëkk seen koñ ñii génn nañ seen seen i kër ñii tuxu nañ ñi nangam nangam wax ju ñaaw ak gu salte ju bon moo dëkk ci seen i nopp ba xajootuñu ñan war a dëkkal ñu génn dem ba fa yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana arzuq qulubana ba'da idh طويل لنا عمرنا سهل لنا أبدا وحب لنا رزق وتوفيق يا الله ودمر كل أعداء تدربنا قبل الوصول إلى يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سياسة المعصر فمن يسر عيني يا الله وشر شر وشر قلق اسم مع جن وسواد اسم يا الله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين